fas yéene ñëw yëkkati ay kàddu jëmale ko ci kàddu yi ngeen dégg te imam bi nga xamante ni moo doon jiite ci jumaay ndakaaru ju mag ji wax ko keroog tabaski xam ne di njiitul réew mi seeti na ñëpp waaye seeteegu leen mu wax nag ni ci sunu jumaa lay jullee waaye walla ci sunu jumaa la jullee si waaye seet seegunu te seet si na ñëpp te nun nooy bunt bi waaye li ma ci ñor rek mooy sunu jumaa li tax ma yëkkati kàddu itam mooy e, nit ñi ñu ci bari li ñuy dégg la ñuy gëm day baax lool nag ñu indil leen mboorum jumaay ndakaaru ju mag ji ñu naan grande mosquée de Dakar ndax bu ne sunu juma juma néegu yàlla la alxuraan moo wax ni wa anna al masajida lillah kon juma néegu yàlla la bu loolu wee itam mbir ngir nga moom ko day fekk nga lamb sa poos mo xam juma la mo xam kër la lu man di doon nga tabax ko ci sa alal bu boba bu la neexee nga ni ma tabaxal yalla yab nek sama juma ji ma tabax ngir yalla waye mom sunu Juma ta ndaw yi nga xamanteni bi seeni at gannaaw jumaa ji la ñu feeñ mën naa indi am lënt ci ñoom moo tax ma ni nag faaw ma indi leeral yi ngir xamal imaam ni ko wala fi dañuy wax ni lu sotti am borom waaye toll woon na ay jamono day wala bu fekkonte ni jumaa ji ñi ci jële woon seenub xaalis tey dañ ñëwoon dañu leen koy delloo wala ñuy séddale jumaa ji nii kët ñii ci defoon seeni àll moom moom mi bëgg moomoo jumaa ji du jot dërëm ndax ab dërëmam dugg ca woon ngir leeral nag am na journal boo xamante ni bi njiitu réew mi njëkk a jiite senegal muy Léopold Sédar zangor parti bi wala sen parti bi ñu doon wax union progressiste sénégalais muy UPS sen amoon kay yu bop bu ñu doon woote bu ñu doon woyé bolok Afrique muy l'unité africaine journal bobu do doon bind ay jaxan manam lima bëgg wax moy

juróom benn dërëm muy trente francs journal bi njiitul réew mi di Léopold Sédar Senghor conseil d'administration bi nga xamante ni ñoo yilifoon journal bi wala ñoo ko doon saytu moom président Léopold Sédar Senghor moo doon président conseil d'administration ba kuréel googu ñii ca bokkoon moo doon Lamine Gueye Ousmane Socé Diop Joseph Gomis Mody ak Assane Diop journal bi ay bis gu nekk la daan génn ab hebdomadaire la woon fanweereelu su yëglekaay ba muy numéro 30 ba moo ñëw ak noonu ci bi nga xamante ni bii buru marok joxe na xaliss ngir juma ji dañu wutone ak kurel go xamanteni bi dañu doon wër julit yi ak manam kilifa yi ngir ñu japp ci liggéeyu jumaa nga xamante ni ñoom dañ doon wër di def ket di laaj léegi nag bokk yi nanu déglu ba xam ñoom wala moom mi ni ñoom ñoom moom jumaa ji ñaata la ñuy joxe woon ba ñuy defar jumaa ji journal boobu nga xamante ni bii moo indi ñu joxe ci jumaa ji soo ca demee da ngay fekk ca kaw sëriñ lu Mbàkke joxe na million rakkam sëriñ Basiiru Mbàkke mi waajuru Cheikh Muntaxa mi toog toogaayub sëriñ Tuubaa yàlla na fi yàgg te joxe na téeméeri junni ak ñaar fukk muy six cent mille sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma joxe na téeméeri junni muy cinq cent mille sëriñ Modou Xaban Mbacké doon xalifa sëriñ Ahmadou Ndumbe Xaban joxe na ñaar fukki junni muy cent mille sëriñ Modou Mamoun Mbacké doon xalifa maam Cheikh Anta joxe na deux cent mille di ñeent fukki junni rakkam sëriñ Tàkko Mbàkke joxe na ñaar fukki junni muy cent mille sëriñ mu daaw balla loon xalifa borom daarul muuti joxe na ñaar fukki junni muy cent mille rakkam sëriñ Cheikh Aw Balla joxe na ñaar fukki junni muy cent mille sëriñ Mouhamadou Habib di rekk sëriñ mu daaw balla xamni gënaaw sëñ moo taw bal la moo magoon ci njabootu borom darul moxti janvier 1960 bi ñuy laaj xaalis bi fekk na ko ci tawat ji nga xamante ni ba ñu eggee ca weeru mars moo ko yóbbu la mu doon nekk nekk ci tawat joxe woon na juróom benn junni xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Ablaye Fall Ndar joxe woon na fukki junni cheikh al islam sëriñ a Niass ñu gën ko xam ci Baye Niass joxe woon na million ak ñeent fukki junni muy un million deux cent sëriñ Abdou Aziz Dabakh mi doon xalif général des Tidianes joxe woon na fukki junni sëriñ Adi Touré borom Fass Touré te waajuru sëriñ Abdou Aziz Touré joxe woon na juróom-ñetti junni sëriñ Ahmadou Dem bu sookoon joxe woon na juróomi junni di vingt cinq mille francs sëriñ Ahmadou Cissé bu Pire joxe woon na doon waajuru sëñ Moustapha Cissé joxe woon na ñaari junni di dix mille francs sëriñ Babacar Ndiour di kilifa ak diine nekkoon kees joxe na cinq mille francs di ab junni sëriñ Fallou nag jaayante ni weeru janvier wi ma joxe million booba jumaa ji di yegg saa bu dellusee dinaa jox daam mi mii sama secrétaire ab million mu yóbbu ko jox ko ñuy defar jumaa ji noonee la ko defee da ko dale ci 1960 ba 1964 bi nga xamante ni ci lañ julli jumaa ji ndax jumaa ji ñu ko julli ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent at mu jot sëriñ Falilu Mbàkke joxe na ab million sëriñ Moodu Maamun doon xalifa maam Cheikh Anta moom it ba mu joxee ñeent fukki junni daf leen ni ba ba jumaa ji di yegg janvier bu nekk danaa joxe lii ma joxe tey muy ñeent fukki junni di deux cent mille kon mbokk yi ñii ñoo joxe gannaaw xaalis bi bàyyi ko woon Maroc ñu tabax ci jumaa ji ba niñ ko julli ba niñ ko jullee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars 1964 kon ñii bu ñu revendiqué bu ñu newul sunu jumaa keneen wër taxaw naan sunu jumaa ndax jumaa néegub yàlla la rawatina ba ñu koy tabax di laaj sa dërëm demu ci nga wagneeku nag bëgg wax ni jumaa ji ko moom kon euh, yaakaar naa ni leer na li mu wax ni nun nooy bunt bi loolu moom yitteelu li mu wax ni nun ab gouvernement lanu gouvernement boobu la ko waral fa mu jaar mënoon naa cee leeral ndax lépp ngeeg man liñ doon wax république euh, la taxoon ñu sos ko fa jaar lépp xam nañ ko te jamono yooye wuute na ak léegi lool lool lool kon nag bu taxawee ni sunu jumaa day baax lool ñu leeral nit ñi ni leen yi ndakaaru jii kët nii la ko julliti Sénégal yi tabaxe jarul ma dellusi ndax kenn ku nekk te nga joxe ci sew ñaq journal bi bind na ko ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mars keroog ba ñu koy ubbi itam teew na fa Serigne Cheikh Awa Balla teew na fa Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma julli ga Serigne Abdoul Aziz Dabakh xalif général des Mourides xalif général des Tidiane moo ko jiite ci teewaayu buurub Maroc di Assane II ak Senghor ak ay jullit yu baree bare bare bare bëri kon mbokk yi mu gudd mu gàtt taarixub jumaay ndakaaru jii di grande mosquée de Dakar nii la demee ñii ñoo ci joxe seenu ñaq kon kii ni seen jumaa war na noo wax nan la ñu def ba moom jumaa ji lii daal laa woon mënuma ko ñàkk leeral ndax journal bi xëy na tasaaroo na waaye am na ñooñ mënuñoo dawal maanaam mënuñoo liir waaye ku leen ko waxal ñu dégg dana danañu xam ni jumaay ndakaaru nii la ñu ko tabaxee maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf